Abdoulaye Mbaye, directeur administratif et financier de Dangote Cement Sénégal. Aujourd'hui, vous venez de faire la pose des premières pierres de deux écoles, Toulouse et euh, Diass. Euh, euh, qu'est-ce qu'on peut dire? Écoutez, nous étions venus aujourd'hui avec la délégation de Dangote Cement Sénégal que j'ai conduite pour faire la pose de première pierre de deux salles de classe que nous allons faire pour le lycée de Touglou et un magasin. Nous venons tout simplement de quitter aussi euh, Jazz, euh, où nous avons aussi fait la même chose, une cérémonie de pose de première pierre pour deux salles de classe et une salle des professeurs. Donc ceci est l'aboutissement du, du, comité RSE qui a été établi entre Dangote Cement et les quatre communes, où on, dans ce cadre de concertation, des discussions sont émises pour pouvoir orienter les différents budgets que Dangote alloue au niveau de la RSE. Et vous savez que euh, au niveau de la RSE, l'éducation pour nous a une importance assez capitale. Parce que pour simplement JAS, nous avons fait des, des salles de, de, de classe à l'école élémentaire. Nous allons bientôt inaugurer aussi l'école élémentaire de Santial dans la commune de Kermoussa.

est une importance dans, dans la maîtrise de cimenterie d'Angote Est-ce que cela veut dire que les, vos activités sont décentralisées dans d'autres établissements de, dans d'autres établissements, non, en fait, ce que j'expliquais tantôt, c'est effectivement les différents volets que touche la RSE, ce n'est pas seulement l'éducation. Nous avons l'éducation, nous avons la santé, parce qu'il faut savoir que nous avons fait une maternité au niveau de, de la commune de Pout. Nous avons aussi construit un centre de santé à Fouloum. africain. Donc ce sont deux points majeurs sur lesquels nous nous concentrons, l'éducation et la santé. C'est un projet de construction. On est en train donc de poser la première pierre pour la construction de deux salles de classe et d'une salle, et d'une salle des professeurs. Comme je l'ai dit, donc cela vient à point nommé dans la mesure où ça va nous permettre de réduire considérablement donc, le caractère prétorique donc, de nos effectifs. En même temps, donc de mettre les prof, le corps, tout le corps professoral dans de meilleures conditions pour donc, euh, euh, les, les enseignements-apprentissages. Voilà, les, les, difficultés que nous avions, le censeur l'a rappelé tout à l'heure, cette année, on a même fait des réductions horaires parce que les effectifs étaient pléthoriques et parce que ça manquait de salles de, de classe. ça manquait de salles de classe, de telle sorte que certaines heures ne pouvaient pas être donc, placées dans les emplois des profs et des élèves. Donc il fallait obligatoirement procéder à une réduction, de, de, de à donc, horaire. Et ce problème sera donc largement résolu donc, par cette action que Dangote donc, vient donc, de démarrer. et qui, Inch'Allah, devrait, donc, euh, devrait être livré donc, euh, au plus tard au mois de novembre. On prie donc à euh, Allah pour que cela soit ainsi. Euh, voilà. Quel est l'effectif de cette Voilà, on est à 1450, 1453 élèves. 1453 élèves. Parce que notre rôle ici, en tant que fonctionnaire, c'est de développer cet établissement-là. Mais comme l'APE l'a fait, donc on devait aussi, on doit aussi entrer en collaboration avec toutes les personnes physiques et les personnes morales qui sont des ressources comme Dangote, les personnes morales comme Dangote, et qui éventuellement donc, peuvent donner un coup de main pour booster tout ce qui se fait dans un établissement scolaire, c'est-à-dire les enseignements et les apprentissages. les enseignements pour les enseignements donc pour la qualité des enseignements du côté des enseignants et donc la qualité des apprentissages pour, au bénéfices des élèves et Dangote est sur cette voie-là vraiment nous prions encore une fois pour vous. Mhm. voilà donc euh, man euh, maa ngi tudd El Hadj Habib Diouf man maay proviseur u lycée bu Diass voilà lycée bu Diass tey dañ fee ñëwoon pour euh, pose première pierre pour euh, tabax euh, ñaari salle de classe ak benn euh, salle des professeurs acte la boo xam ne dafa egsi ci jamono bañ ko gën a soxlaa sax ndaxte dinañu permettre ñu régler problème bu nga xamante ne nii vraiment problème bu diisoon la ci ñun mooy effectivement élèves yi bari élèves yi dañ daan bari ci classe. ba nga xamante ne c'était insupportable ensuite euh, manque de salle de classe bi aussi dina ko wàññi bu baax a baax de telle sorte que élèves yi daañu gën a nekk à l'aise yaa aussi que kii euh, prof aussi dinañ gën a nekk à l'aise pour euh, dispenser seen cours et terminer leur programme à temps donc on a ñaari classes yi rek du ñu doy parce que ñun suñu projet pour deux mille vingt et un deux mille vingt deux c'était d'avoir quatre salles de classe c'est la raison pour laquelle en collaboration looloo tax euh, ak euh, APE euh, dañoo décider ci ci conseil de conseil de gestion bu mujj a mujj ba bi ñu mujjee woon def dañoo décider woon serrer la ceinture pour mm, ni ñu serré woon la ceinture moo doon dañu ne ren du ñu defar tenue élèves yi amuñu tenue ren l'argent des tenues moom la ñuy jël xool suñu serré lan lañ ci mën a dolli pour mën a am ñun aussi ñaari sale de classe yoo xam ne ñoo koy tabaxal suñu bokk moo tax sànq ma ne xëy na yàlla dafa dégg suñu ñaan moo tax moom aussi mu dollil ñu ñaari salle de classe de ce fait ça fera euh, mu nekk ñeenti salle de classe Dangote dinañu tabaxal deux salles de classe ak salle des profs ñun aussi fële dinañ fa def sa euh, va commencer normalement semaine prochaine on dinañ fa def ñaari salle de classe yoo xamante ne nii euh, administration wu lycée bi ak waa APE ñoom ñoo koy songu liggéeyandoo ko voilà et je pense que ça donc 53 waaw mooy waaw junni ak euh, ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñeent euh, écoutez le, ce projet la là la l'accueille avec euh, beaucoup de satisfaction parce que Actuellement, nous avons besoin de salles de classe. Donc, euh, pratiquement, donc, la plupart des salles de classe sont délabrées et ils ne sont pas, euh, elles ne sont pas suffisantes. Donc, euh, si on nous fait, fait, construire deux salles de classe, donc ce n'est que bénéfique pour, pour, le, pour le lycée. Mm-hmm. Que, quelles étaient les difficultés euh, Les difficultés ici au niveau du lycée. Mm -hmm. Euh, bon, les, les difficultés, c'est au niveau de l'enseignement. Hein, au niveau parce que si on n'a pas assez de salles de classe, vous savez que c'est extrêmement difficile donc, euh, de jongler avec les emplois de temps. Des fois, tu es obligé de faire des réductions horaires, des fois, tu es obligé donc, de faire des gymnastiques, etc. etc. et c'est extrêmement Donc, euh, si on, a deux salles de classe en plus de des salles donc, euh, que nous avons à notre disposition, donc vraiment, ça donc, euh, un peu soulager le sens au niveau des emplois de temps. enfants. Mhm, l'effectif. Euh, l'effectif total au niveau du lycée donc ça tourne autour de de neuf cent élèves neuf cent mille élèves. Mhm. Voilà. C'était les seules préoccupations. Euh, non <laughs> c'est un lycée en chantier je l'ai dit hein, je l'ai dit il y a il y a beaucoup de priorités il y a il y a beaucoup de de préoccupations mhm. donc euh, j'ai je me suis abstenu de de parler des des des véritables problèmes mais euh, ma priorité après, après le, le, la salle de classe c'est une, une bibliothèque, parce qu'on a besoin d'une bibliothèque ici. Euh, les, les, les, élèves ont des problèmes au niveau de, de la lecture. Mhm. Donc on a besoin d'une bibliothèque donc, fonctionnelle avec des, des, livres. Donc on a besoin également d'un terrain multisport, au niveau des... Euh, on, on, a besoin également donc laboratoire, etc. etc. Donc c'est la, la, liste n'est pas, n'est mhm. euh, en tant que professeur, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement du Non, le, le gouvernement euh, donc, donc euh, qu'il nous accompagne et donc, ils nous ont toujours accompagnés à travers euh, euh, l'inspecteur d'académie, M. Babadiassé, que je salue et je le représente ici. Donc euh, il, a, il, il, a, toujours accompagné le, le ministre de Toglou et également le ministre, donc, euh, donc il nous accompagne dans, dans, tous les domaines. Mais également, il faut que les partenaires aussi donc, nous accompagnent dans, dans ce travail-là. Et donc les partenaires donc, comme Dangote donc, sont en train de, de jouer ce rôle-là. Voilà. Mm-hmm. Les résultats chaque année est-ce yëpp c'est au niveau de Sénégal jafe-jafe yi moom mënul ñàkk mais am na ay priorité am na ñoo xam ne daal ñoo gën a jàmp waaw ah, am nañu priorité ah, am benn euh, bibliothèque bu nga xam ne bii xale yi nañ fi mën a ñëw di lire nañ fi mën ñëw di def documentation loolu amu fi te fii xam nga nekkul dafa xaw a sori grande ville yi nga xam ne am na ay bibliothèque publique loolu moom il faut ñu am benn bibliothèque bu xam ne bii xale yi nañ fi mën ñëw di def seen documentation loolu amu fi am nañu priorité également am au moins benn nu mu tuddee sax benn laboratoire bu ñu amul laboratoire sax ñu am benn euh, benn mallette électronique bu nga xam xam ne nañ si mën a dañ si man jàngal xale yi science beneen bi mooy aussi euh, amuñu terrain terrain de sport bëgg nañ benn terrain multisport ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc mhm. euh, effectif élèves yi nan la toll waaw effectif élèves yi moo ngi tourner autour de euh, junni wala lu yées junni waaw 900 wala 1000 à côté yooyu la nekk. Mm-hmm. yi école di joxe ndax satisfaisant na. macha allah macha allah résultat yi moom bi ñu ko érigé. waaw gouvernement Sénégal comme ni euh, ni ñuy xaar si ñoom mooy li ñuy li ñuy def rek toujours mooy ñu accompagner ñu dañuy accompagner si lépp. waaw parce que ñoom euh, inspecteur d'académie moo leen fi teewal. te inspecteur d'académie Pape Baba Diassé moom aussi moom pratiquement man maa ko représenté si cérémonie bi waaye moom toujours daf ñuy nemmeeku dañu woo dañu laaj fu ñu toll ñu dañ lañ ngeen soxla lu ñu mën ñu def ko euh, ministre bi aussi ñoom aussi à leur niveau ñoom ñu ngi ñu ngi def lu ñu mën aussi mais xam nga comme aussi wolof moo ne daanu dajul suuf donc état bi mënul lépp IA bi mënuñu lépp même il faut que ñu am ay ay partenaires yu ñu accompagner pour que yenn yi nga xam ne yi dafay laaj eh, yenn yenn financement yi nga xam ne yi dafay dafay xaw a jafe ñoom aussi les partenaires là ñu dimbali tey ñu euh, ngeen orienté fii Dangote ci li jëm ci ay salle de classe lan moo tax ngeen def choix boobu. voilà euh, ma ma remercier avant tout waa Dangote ñoo xam ne ñoo fi ñëw tey euh, may ñu ay salle de classe au niveau de jas ak fii sa Diass ak sa Touglou. Mm-hmm. ñu rafetlu loolu di ci kontaan di wax ne du lu ñu njëkk ñu koy def defoon nañ ko daaw au niveau de Cikki te xam naa dañuy continuer di ko def parce que dañoo am lu ñu tuddee comité RSE boo xam ne moo dajale ñëpp communes yoo xam ne ñu impacté nañ leen ku ci nekk yaay wax fa nga bëgg ñu dimbali la te foofu lañu lay dimbali. donc tey aussi ñu accueillir leen fii au niveau de Toucoul ak Diès ñu war fa tabax salle de classe ñu rafetlu ko le maire de la commune de Diès Cheikh Tidiane yebal ñu ak équipe ñëw fekk Euh, jataay bi vraiment remercier waa Dangote remercier euh, le président directeur général ak Ousmane Mbaye moo xam ne moo leen représenté tey ci délégation boo xam ne ñoom lañ fi indi. wu mhm, Toglu ñaari muy ñaari salle de classe ak benn magasin ñu ngi jóge si lycée de Diass boo xamante ne même cérémonie de pose de première pierre lañ leen doon defal pour seen lycée bi foofu ñaari salle de classe dañ fa war a tabax ak benn salle des professeurs. donc loolu yëpp mi ngi jóge ci comité RSE li nga xamante ne Dangote ak quatre commune impactées yi dañ ciy waxtaan par rapport ak ñoom lu ñu bëgg lu ñu leen di defal te orientation bi mooy ci cadre cadre de concertation bi mairie bi moom mooy wax effectivement lan mooy ay priorité am donc bu ñu ñëwee ci euh, commune de Diass ren mairie bi ay priorité mooy volet éducation parce que gis nañ ne effectivement commune de euh, lycée de Toglou ak lycée de Diass soxla nañu ay salle de classe gis ngeen ne xale yi ci salle de classe yi xat na jàng bi métti na surtout période tàngaay donc euh, day nekk ay salle de classe yoo xamante ne sincèrement bu ñëwee dina dimbali proviseur ci liggéey bu muy def ndax de liggéey bu métti la. te xale yi aussi tamit dina mën a faciliter seen jàng parce que jàng di di tàncaloo ci benn classe ak benn professeur tam war a jàngal élèves yu bëri loolu lu metti la donc loolu daal sincèrement day ñëw soulager souffrance yi mënul régler problème yëpp nag mais au moins dina soulager waaw loolu mooy daal suñu wàll si RSE bi te ñu ngi ciy jéem a di góorgóorlu ak communes yi. ñaari ñaari projet yi normalement dina coûter environ 34 millions. te travaux yi dina démarrer incessamment parce que entrepreneur bi yëpp choisir nañ ko normalement bu yàlla defee jàmm balaa école du ubbi waat dina fekk salle de classe yi ubbi ñu mën ko ñëw inaugurer ko ak jàmm. Euh, seen euh, RSE dafay jëm rek ci santé wala. voilà RSE bi euh, en fait ñaari volets yi si ëpp solo mooy éducation ak santé ndaxte ñaar yooyu moom daanaka boo ko waxee rek wax nga lépp. mooy wéngu yaram ak jàngal xale yi pour seen avenir donc moo tax ay vole yoo xam yu am solo la te ñu ngi ciy jéem ci communes yu bëri ndaxte euh, daaw demoon nañu euh, inaugurer ay salle de classe yu ñu defoon ci Diass euh, pour tamit ñu ngi leen di taxaw tabaxal benn école élémentaire ci commune sant yàlla pare na xam naa fii ak quelque temps dinañ ko dem inaugurer ñaax tam dem nañ fa tabaxal leen CM. loolu mooy wàllu éducation bi boo jëlee wàllu santé ñu ngi fulum commune de Morolan tabaxal nañ leen benn centre de santé parce que benn village boo xam ne plus de cinquante mille personnes yoo xamante ne ñu doon xëy war a dem ba Morolan pour fajo ñu defal leen centre de santé commune de Pout aussi ak nu mu magee noonu ak centre de santé bu fa maternité amu foon benn ñaari saal rek moo fa amoon tabaxal nañ leen maternité te actuellement aussi Kër Moussa ñu ngi leen di tabaxal benn hôpital donc xam nga ne ñaari wàll yooyu muy éducation ak santé ñu ngi ci góorgóorlu waaw donc defe naa ne bu ñëpp defee ni ñun xam naa ne état bi moom euh, dina noppalu ko ci wàll yu bëri voilà merci